awuzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmaan irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen baal wax bu baax baal na leen yàlla yàlla boole nu jéggal ñu ñëw ci seen ñetteel bi leçon ci téere bii di asmaa yi tey ñu ñëw ci buntu tiim mu ne baabun lii ab bunt la boo xam ni at tayammu mi dafay jàngale tiim mu ne wat tayammumu tiim fara faraidun am na ay farata wa sunanun ak ay sunnaam wa fadailun ak ay ngëneelam kon tiim yi yépp am na ci mu ne fa amma faraiduhu faratay tiim fa arbaxatu ñeent la ban ak ban mu ne an niyatu bu njëkk mooy yéene waxiya moom yéene an yan wi mooy nga yéene istibaaxati salaati istibaaxati salaati nga yéenee daganal julli ci tiim mi ma ne danga ci yéene julli yi mooy jullikat sobe sii ma àndal tiim dañalul sobe si waaye dama ci yéene julli ndax ngàntal jàpp ndax li anna tayammumi naka tiim laa yarfau alxadasa ala almashhur nee na tiim kat dañal sobe mukk ci li nga xam ne moo gën a siiw ci li boroom xam-xam yi wax yére bii daa am sobe wala boog dama war a sangu set wala man dama am sama njàpp toj na njàpp loolee toj wala sangaay loolee war a nga war a sangu tiim du ko dindi tiim kay lim lay dimbalee mooy nga mën a julli waxtu yu bañ koo faat alal ma suuf ci li gën si ma ne loolu mooy benn bi xam ne mooy bu njëkk ci farata ñaareel bi yi mu taamimu wajhi mooy matale sa xar kanam ba nga koy masaa gis nga booy masaa sa kanam nii ci tiim dana jàngal tiim ci beneen bunt masaa boobee ngay masaa sa kanam di commencé fii waxoon naa la kanam ci jaaw ci ci jàpp fi mu commencé boo tegee sa baaraam yi fa baaraam yi yem fii fa la sa kawar sa baaraam boo ko tegee ci sa yéen yi fa mu yem ba ci mujj nii fii fa la kawar di commencé sax foofu ngay commencé massa ba ci sa suufu sikkim ba ci sa ñaari e, simaxul usin sa cat nopp yi matale ga ngay matale loolee nee na farata la wa yadayhi ak sa ñaari loxo ilal ko ay ni ba ca conc loolu mooy ñaari wa darbatul ula ak dóor ba ngay njëkk a dóor sa loxo ci kaw suuf boo ñëwee daan ni tëpp sa ñaari loxo ci suuf nii loolee mu ne farat la wa saidu ak pakk ak taahiru bu làpp maanaam pakk bu làpp nga tiimee fa loolu dangay jàpp ne farata la kon boo tiimee ci fu laabul tiim nga baaxul nga ne ko pakk bu làpp mooy laa moo mu ne wubu moom kullu ma saada mooy lépp loo xam ne pàkkal ala wajhil ardi ci kaw suuf lépp loo xam ne daal suuf la min turaabin moo xam suuf yii la beeñ la wala suuf mënoon aw ramli wala mu nekk suuf boo xam ne suufu beeñ la aw xijaaratin wala mu nekk aw doj doj woo xam ne amul si amul ciment maanaam la nekk doj aw sabaxatin wala mu nekk ceeñ ceeñ mooy suuf soo xam ne dafa am xorom wala mu saf xorom aw naxwi zalik wala lunduroog yooyu bu boobaa ban dugg ca leneen dugg ca kon faratay tiima ngoog wa amma sunanuhu ndaa sunnay tiim fa salaasatun ñett la nga ne ko ban ak ban mën bu njëkk bi tartibul mas yi mooy nga toftale masaaya wal masxu minal kuuci ilal marfiqayn maanaam na defee masaa nii dóor masaa sa loxo fii bu agsi bi jëloo si ko fii noonu ne loolee toftale googu nga koy toftale sunna andi ko ba ci fii sax laa bu jiitu merfexey wa tajjiidu darbatil yadayni dóorub ñaareel ba maanaam dóor bu njëkk ba newoon naa la farata la dóorub ñaareel ba loolee sunna na su may jàngale tiim danga gën a comprendre bunti bu baax bi mas si zahiril yum na euh, baal ma waaw kay ilal marfiqayn wa tajdiidu waaw kay wa tajdiidu darbat darbatil yadayni nee ñett yooyu kon ngay jàpp moom mooy sunnay tiim wa amma fadailuhu ngëneel ya fa thalaasatun ñett la aydan moom itam kon sunna yaa ko ngëneel yaa tolloo ka ne ko banat ban ma ne bu njëkk mooy at tasmiyatu wax bismillah loolee nga jàpp ne ngëneel la wal ak commencé bi ma zaahiril yumna ci massa euh, biiru loxo ya loxo nday joore teg ca biiru loxo yi euh, baal ma loxo yi bitti loxo yi euh, kenn biiru loxo yi loxo càmmoñ bi maanaam njëkkee ndi joor teg ca teg ca càmmoñ loolu ma def xëy ni ba ca compé suma bi baatinin teg ca biir ga maanaam njëkkee bitti njëkkee bitti teg ci biir ila axil asaabi amu jeexee ji ca cati baaraam yi masxul yusra massa ngay massa càmmiñ ga tamit comme na nga defee ndeyjoor joor misla zalika loolee da nga jàpp ne ca ngëneel ya la bokk kon li nga jàpp tiimu nga ko mu ñëw ci beneen mu lay jàngal surutu baabu bunt boo xam ne dafay jàngal suruti salaati mooy sart julli julli dafa am ay sart moo tax ma ni wali salaati ñeel na julli suruutu wujubin sart yu war wa suruutu sixatin ak sart yu wér julli daa am sart yoo xam ne dafay daje julli gi war am sart yoo xam ne dafay daje ngir julli gi wér li war ak lu wér bokkul danaa bunu accès bi nag comprendre ma ne fa amma suruutu wujubiha ndaal sart yi nga xam ne moo war ci julli fa xamsatun juróom la al bu njëkk bi mu ne al islaam mooy nekk jullit kon boo nekkul jullit julli warul wal buluuxu nga majeur bu kon boo nekkee xale julli waru la wal na nga amam xel kon boo dofee mbaa nga mbàndi julli waru la wa duxulul waxti dugg waxtu wa maanaam fii ak waxtu julli jotul julli waru la wa buluux wa buluuxu daawati nabii sallallahu alayhi wa sallam jot yooteb yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne am na yonent bu tudd Muhammad ginnaaw ba fi Isa jógee yonent boobu dafa indi diine su fekkee jotagoo woote boobu yaa ngi naan loolu nu amee waaye ba ñii di bind seen téere yi loolee amoon kon kookee moom it bu ko jotul junni julli waru ko nga ne ko loolu leer na ma sart yi nga xam dafay jax sax jax julli war ma comprendre naa ko waaye tax muy wér ban ak ban la ma ne wa amma surutu sixatiha sart ya tax julli wér fa sittatul juróom benn la nga ne ko ban ak ban mu ne tahaaratul mooy laab toj laab ci toj mooy boo waree sangu nga sangu boo waree jàpp nga jàpp bala lay tax lay waral sangu dabee nga xam dangaa war a sangu nga sangu bala lay waral tiim euh, jàpp jote nga xam ne dangaa war a jàpp mun a nga jàpp wa xabasin ak laab ci xabas laab ci xabas mooy fu sobe taq ci saw yaram wala ca balab ba ngay jullee nga dañal loola loole bu amul ci julli julli ga wérul kon nga jàpp ne julli waa julli te amoo njàpp te amoo ngàntal jàpp mën a tiim te amoon ngàntal tiim war a sangu te am te sangoo te defoo ci benn te ngànt taxul feebaroo dara dalu la boo ci jullee julli ga wérul wastiqbaalul qiblati jublu penku kon nga ji jëg jublu julli dëddu penku te tay ko julli ga wérul was euh, bu ci topp was suturaal awrati suturaal sa awra kon nga jég ci ne julli bàyyi say cër ci biti te tay ko amuloo benn ngant lu tax nga def ko julli ko wéru watarkul kalaami bàyyi ay wax julli di wax ci dul ngant bu amee julli ko wérul waa tarakul afaali bàyyi ay jëf alkasirati bàyyi jëf yoo xam ne bari la kon jëf yi nga xam ne mën naa euh, mënta ñàkk nga def ko ci biir julli su baree julli ko du wér kon loolu mooy surut euh, yi nga xam ne mooy daje ci ak julli mu war nit ki ak yi nga xam ne mooy daje ci ab jullit julli ko wér ñu ngi leen di ziar bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.